démb kenn ku nekk dégg na ministre de la santé li mu wax. ne euh, mbir mi xaw na yàpp. ñi nga xam ne ay commerçant lañ. parce que loolu ay statistiques ñoo ko wane. leneen li segu mu wone ne euh, euh, nit ñi aussi digle yi nguur gi santaane. ci ne dem beeg dikk bi nañ ko arrêté. jëfewuñ ko. mais yow bu fekkee ne yow da nga nekk sous préfet. nekk délégué président de la république représente chaque ministre bu nekk. mais ministre boobee bu toogee wax.

au lieu ñu toppati tali bi dañu wàcc ci mbartal bi xool nit ñi ñuy jàll may wax ak ñoom ci la ma leer ne ñenn ñi euh, baax lañ dëkk ñenn ñi jëndeer te ñu ngoon jógee côté Kassor mais ñun ñu ak ñoom balkat yi ñëw commandant brigade bi ñëw ñu jàpp ci ay nit man ba ma fay jógee démb c'était une vingtaine de personnes mais finalement finalement mujj nañ fa téye lu tolloog téeméeri nit yoo xam ne yi organe de presse yi wane nañ ko démb mais loolu li ko lal wax bi ministre bi wax la te dañ continuer di ko def